ñun ñëpp xam nañ ni automobile yi ñuy oto yi ñuy réparé lu ci bari kenn yóbbuwu leen ci concessionnaire yi ku fa dem bu ñu la tàggalee facture à ah, parfois da ngay reculer te pourtant boo demee ci ñii ñu defal la la nga bëggoon ci loolu te ci loo xam ne du fa egg donc loolu ñii xam nañ am na ñun xam nañ am nañ njëriñ ministre bi nag accompagnement bu mu indi mooy da leen ni kaay leen li ngeen doon def baax na mais oto yi ngeen di jëkkër léegi oto yu bees la oto électronique la il faut ngeen bañ fee nekk di tas oto jël ordinateur ngeen dugal ñu wax la parmi fii la nga dem réparé ko loolu ministre bi engagé wu na jàppale leen ci engagement boobu nag dafa fekk ñoom tam ñu ñu organiser wu fii bu ñëwee il faut ñu am kuréel goo xam ni moo leen di jiite kuréel goo xam ne moo leen di représenté ba ku fi ñëw autorité bu fi ñëw di nga mën a wax ak benn kuréel googu kon ne dem bu ñu amee lu leen jox ñu yëkkati teg ko ci loxo kuréel googu ñu tas ko. lii début bi la ñoom dañuy def dañuy njëkk a jot suuf si. ba ku nekk moom sa yëf après leen aar. ci naaj bi ak ci euh, taw bi parce que munoo ñëw nit sànni ko nii ni ko taw ci naaj bi. am na ñaari bunt yu ndaw ak bunt yu mag yi xam nga fa lañ jógee bu benn waxtu jotee boo xam ne dañ koy choisir ñoo ngi wax huit heures et demi ñi ngi wax neuf heures mais ñëppay génn site bi kenn du fi fanaan site bii du site bu ñuy fanaan ba koy transformer ay kër ak ay kii du am surtout liggéeyukaay la bu guddee gardien yi dugg parce que mën ngi fee bàyyi sa oto mu nekk ci sécurité kon. suñu problème moo mas a doon lii. Hmm. suñu problème moo mas a doon. foncier mon mas donne formalisation mon mas donne financement dañu yàgg dëgër piir Tay am nañu site bo xamante vraiment lañ doon joy di foncier sotti na formalisation mu ngi ni di ñëw parce que ci lañu jëm ndax lu melni buñ la ko joxé boko bëggé bëggee téye ni nga ko war a di nga formaliser sa bopp dinañu joxalé kenn ku ne ndampay ndàmpaay boobu dinañ ci dindi lo xam dañ koy denc ci banque yi bu ko defee ñu ànd di cotiser kenn ku nekk ci ñun ma gën déglu ma bu baax sama gars yi kenn ku nekk ci ñun di cotiser loo xam ne par weer dañ koy denc si banque bi bu ko defee lépp lu ñu bëgg a def képp ku bëgg a lépp fonds boobu dina la mën a euh, garantie. boo defee lu mel nii muy lu rëy loo xamante ne tey c'est une première ci Sénégal da ko war a accompagner ni nga ko war a accompagner mooy marché automobile bi nga xamante ne tey jii li ma gën a neex nag mooy keroog ba ministre bi ñëwee seet si ñu daf ñu ne. jam ñaajo bu ko kenn bañ ci yéen ndax ñun ñi fa lañ ne kon yéen ñi fi ne yor oto yi fii muy oto état bi jox leen ñu marché boobu ñu di ko liggéey. dañoo ñëw ñu jox denn dig digal ñi nga xamante ne ñooy mécaniciens ñu xamante ne ñoom tey ñëpp xam nañu fitna gi ñu nekk ci toltolaan ndaxte fu ñu nekk ñu jëlee leen fa ndax amuñu espace bu ñu moom war nañu jàppalante. ak ay structures yi nga xamantene ñoo fi nek yu melni ni DER. Mhm. ñu melni tamit wuute ay partenaires yu melni AFD té diir tamit ne ñu ngi ubbi talal suñu loxo partenaire beneen pour mu mëna jappalé ñu. Mhm. pour ñu am ay ateliers lolu moy li nga xamantene président non la bëggé artisanat doxé pour que tay ji fi ñu nek muy euh Sébikotane muy exemple pour Sénégal yépp légui nak ñun ñuy ñaan maire yi nga xamantene ñoo ne fi ci Sénégal. ñu xool ci Ablaye Lo maire de Sébikotane pour que ñoom it ñu jox ñu ay espace yu ni mel ku ne ci sa dëkk pour ñu nga xamante ne lii ñuy def muy exemple ñu mën ko yaatal ndaxte ñëpp ko soxla